ñaa da leen a sonal yéen waa Géejawaay dugg na fa ay yoonu yoon boobu ba léegi mënu leen ci moom dara waaw tey incha allah dina fi yam bu soobee yàlla waaw bu soobee yàlla am nañ ci yaakaar bu baax a baax combat bi yéen daal jërëjëf Boy Niang mooy seen objectif waaw mooy suñu objectif parce que tamit vraiment liggéey na waaw da liggéey na lépp loo xam ne tey war na mën a daan Boy Niang kon li rek di ko ñaanal di ko suwate yàlla may ko ndam ndam lu kawe njortam ña ngi koy sangu ci leget bu ndaw ma ngay baaf Lac de Guiers numéro 2 Lac a ngi noonu solaat na ci solaat na leget la sol leget. leget bi waaw moom la solaat. li yor ni xam nga lan li mu yor ci loxo bi. li ma ci bi non xaw ma ko nag. ab looy jéem a la xam réewam Babacar waxoon na la ko nga jéem a xam réewam kaay jëlal ma Lac bëgg bëgg naa la Lac. maanaam waxal. sama xarit nga waxal. waaw Tonce bàyyi ma rek mu wax. non non waaw kaay wax yow. non non ngeen ñëwee. waaw kontaan rek di sant yàlla nag julli ci yonent bi di ñaan yàlla ñi ñaanal guy gi yàlla may ñu ndam waaw di yàlla may ñu ndam mais ni ñëw kenn dal na xel. looy ñaaxee Lac 2 koy ñaax. mu taxaw déglu ko bu mu xef bu mu raf boo ñaaw bu ko guddi la boo ko dàqee heure bu ne mën naa ñëw sa gétt xam naa li may wax bu baax bu mu saf bu mu bu raf di ñaan yàlla ñi ñaanal guy yi fépp kuy ñaanal guy gi nekk nga ñaanal yàlla la dëgër yàlla may ko ndam di woo waa états ñu jàpp ji Gambien na woo paaye Gambien wool sa paayi Abdou Diouf Abdou Diouf na woo paay mi boo na woo paay mi Dame Kassé na woo paay mi ñu ngi may dégg bu baax wala seen paay yàlla may ñu ndam boo ñaan ndamam jeex géejawaay yàlla kon ne ko victoire am muy dem fulul géejawaay ndax ne vraiment champion la te nit ku waaw nit ku nekk ci yoonam la. am nga yaakaar ci lak non luy loolu jàppante naa ak kontaan naa ak boo liiru pression bi monté na de liiru. non aw ma benn pression. lu na nar a xew ci biir lan nga yaakaar ma. daan rek incha allah rabi daan rek kese aw ma benn pression non pression. ak lu mën a xew. billahi wallahi aw ma pression benn pression. non léger fi ne léger nice xool ma cool. maanaam Modou Mbacke. waaw Modou Mbacke baax yaay ko di mi ngi sa doom ndey. dama ñëw tabaski Modou Mbacke wax. non nee waa dëgg la waa dëgg la incha allah nee na ñëwal waaw. mën. Boy Niang mën. waa Niang moo mën wala moo mën. Lac de Boy Niang yaaw. non xam nga man mbëru Pikine laa. ñaanuma yàlla lu yàlla may ndam Boy Niang. Mike Tyson waaw mbër mi fa. Tyson ne ko. waaw Lamine li TV nee na. waaw bi gën a mak ci interview yi muy def. mooy def ak moom interview. jeex na dinaa ko ko wax. te loolu day am day sotti. waaw loolu war naa mën a nekk. Tyson xol ba rafet. loo ko ñaan mu may la. leer na big pato Lac de Boy Niang. gannaaw yàlla Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam suñu ñaari waajur nañ sant Mouhamed Ndao Tyson. tey jëf yaaw dégg naa la yaaw. loolu am na. loolu am non man Lac 2 Boy Niang na bàyyi Tyson Tyson sama Tyson. Lac 2 Boy Niang. man du ma la wax en tant que amateur dama lay wax en tant que sportif ñoom ñaar ñëpp xoolal seen tànk yi. physiquement dañoo pare combat bi. Lamine combat bi may gis nii ku ci pronostiqué juum. parce que ñoom ñaar am nañ détermination ku ëpp initiative yaay jàll combat bi. leer na ku jël initiative rek yaa moom combat. mais yow jàll nga ñëw ngeen bëre. yow yaaw jaal xanaa day xaru yaaw jaal xool na boppam la mu def si lamb Big Pato. Big Pato 46 victoire. Big Pato. Big Pato. yooyu yooyu est-ce que mos nga am victoire. Big mos nga am victoire. ndax dama ne ndax mos nga am victoire. Boy Niang Lac noo leen gisee ñoom ñaar. ah bu doy waar. combat bu mag a mag bu méttee métti combat bu technique parce que ñoom ñaar ñëpp ay techniciens la ñu te ku ci nekk da ngay lire kenn du bàyyi dara moo tax ma xam ne combat buy meti lay doon. Jamil bëgg naa la kay waxal yow. ah ma jox la sama doom nga wax moom. ma rek yaa gën a yàgg ci làmb noo gisee ñaari mbër. waaw ñaari mbër ñu ci forme rek ñu ci forme. léegi nag li ci des nañ bàyyi ba ñu sumee ko ñoom ñaar baal bi sifle rek di nga xam kii man gàlla jekkuwul kenn ci ñoom ñaar instant bi ah gàlla jekkuwul kenn ni nga leen gis non gàlla jekkuwul kenn gàlla gàlla jekkoogul kenn père noo gisa combat bi waaw combat bi ñaari nattangoo li kii dafa féere ndaw kele nekk ci biaf yi boy ñang eh, dafa am lu muy wut tey ji bi jaral na ko lu ne parce que dafa war a jàkkaarloo ak Balla Gaye moo def fi ñu ngi nii combat jaral na ko Euh, euh, Lac de Guiers bon day défendre couleur u Guédiawaye bon am na fu Boy Niang jaar fii Boy ñaar jaar euh, bëggul mu yemale ko foofu moo tax moom kut ko kut bëgg na xool nii booy bi mu ne waaye nag naa la naa xamal leen de booy bi yaram yëpp bëre la yaram yëpp bëre la xam naa nag li ma ko sant mooy na na daw droite jam ko gauche combat waa ci mu jël ko ci suuf combat bi jeex. Ah? ñaari mbëri noo leen gis. non pare nañ de pare nañ instant yii ñoom ñaar ku nekk daam loo bëgg te ku ne daam fu la làmb ji di yóbbu wallaahi lazim. santiroo ne jekku nañ ci kenn ci gàllankoor. non non feeñagul feeñagul. waaye mën naa feeñ. non mën na mais am na ku jël si nag. kon baax na am na ku jël sëriñ. yàlla yàlla nangu siyaar. noo gisee ñaari mbëri. ñoom ñaar yëpp ñu ngi ci état koo ci gis mi ngi mi ngi ci forme koo ci gis yore na ndamam. mais nag làmb la ñaari ndamay dugg benn ay génn kii daan yàlla rek ko xam mais ku jéem sañ-sañ yaa moom combat bi. lu leer nga wax mais ñaari mbër yi est-ce que combat bu yàgg ngay xaar ñoom wala combat bu gaaw. yàgg xalaatu ma xalaatu ma mu gaaw kii pied droit lay teg kii pied gauche lay teg seen i tànk day jàkkaarloo mais ku ci sa kur bañ jël sa morom bëtt la. ngi noonu laga ngi noonu am na ku mu di wax ña ngay wax. lu ñu wax Papa Ndiaye ñaar ñu lu ñuy wax. ah xam naa da nga jox secret rek. lan la wax nii. secret mystique yi la koy wax. lu leer. maanaam li koy permettre moom mu daan rek xam naa. loolu kese la wax. ah waaw loolu rek la ko mën a wax sax Lamine. bëggoo ma wax la lu mu ko wax. ah li mu wax kañ ñoom ñaar kañ mënoo ko ma dem taalal ko micro bi. non du wax day bañ. doo ko seetaan. foofu amoo fa accès. doo seetaan ma def loolu. ah non non du ma ko seetaan parce que ay mbiram wóoru. Ah. waaye ñoom précal la ñu. ah xoolal loolu ma ngay action action Papa Ndiaye xës ah ah laa ilaaha illallaah ña ngay wërale wër wërloo mètre yi perkal yu bari laga ngi noonu Papa Ndiaye di lag ma càng ca digg géew ba ay lag da ger numéro dog booy ñaa ndax booy ñaa day toj day toj rajax waay ci kanam lay leer ndax Lac de Guiers numéro 2 day stoppé ki nga xamante ne mooy booy Niang ci kanam lay leer ak lu mën a xew arbitre dana génn seen diggante bu neexee yàlla booy Niang la nga waxoon nang ci dellu Lac de Guiers numéro 2 nga waxoon nang ci dellu booy Niang yaa ne ma woon maa ko gën a pare Lac de Guiers ni xam na ma bu baax Boy Niang ni man nam la ma xamee Lac de Guiers dama bëgg nga woon Boy Niang ni nga ko xamee Boy Niang dama bëgg nga woon Lac de Guiers ni xamuma la ñaar ña daje ma ngay fecc ma ngay fecc laa ilaha illallah ma ngay cukki-cukki poids lourd ko daan de waaye poids bu tey ngay bëreel poids sa musu daan moom Lac de Guiers numéro 2 Boy Niang koo daan Lac de Guiers poids léger daan tey lu ci am lan moo ci am tey tey faaw benn am ci ak lu mën a xew tey benn am ci om soobu garga foone ana ki nga xamante ne mooy Abdou bu xarañ loo ana ki nga xamante ni mooy waa xew-xewu làmb ji ñoom am di Moustapha Cheikh Bass borom Kër Massar petit promoteur bu mag bi du nuyu sa doomu nday booy bawal ma ngay bale ma ngay bale di ko top ma ngay bale bale di ko top ma ngay bale di ko topp am na lum ko koy wan Papa Ndiaye lii sërub lan la ser bi loolu lu mu si Papa Ndiaye. Ah, lii xëy na ay tegtal la rek la min demal xool ser lu ci ne. ah mënu ma ko gis instant yi da nga koo ñeme wala xool. ñeme naa ko xool waaye dama d'accord nag moom moo tax la min ci kanam lay leer ndax ser dana mars ndax bale yi dana mars loolu daal ci kanam lay leer diggante Boy Niang ak Lac de Guiers Boy Niang ngi ni tekk rek ñaari mbëri kenn tooñul sa morom ñaari mbëri kenn tooñul sa morom Papa Ndiaye arbitre nee na pare ngeen. arbitre nee ngeen pare ku nekk deux minutes la dese deux leen dese na gaaw wala ñu dagg seen xaalis Papa Ndiaye ñu dem beneen jëli beneen angle. 13 juillet 2019 samedi 13 juillet 2019 bés la ci bés yi Baye Ndiaye moo ko def bés wala moo ko def événement Lac de Guiers numéro 2 ak Boy Niang arbitre baa ngi wax ak ñoom li lamb bañ ak li mu nangu xam nañ ko arbitre. xam nañ li làmb di bañ Lac xam nañ li làmb di bañ Boy Niang xam nañ li làmb di bañ juste koy signalé avertissement yi la koy wax nee na ko bul ko fàtte dañoo tardé joxoñ leen Boy Niang koy kabar Papa Ndiaye benn booy Niang yu xëpp da nga ne xëpp benn Lac de Guiers numéro xëpp avertissement ñëw leen arbitre bi laaj na juge pare nga mu waaw pare nga waaw lak pare nga waaw Boy Niang nee na waaw laa ilaaha illallaah waxtu wu jot 20 heures la arbitre sifflé Papa Ndiaye 20 heures 53 fii ci arène nationale bi Baye Ndiaye Albourakh Events Lac de Guiers numéro ma ngay génn gën nañ koo gis daana ko def 2006 2007 2008 yii la daan def yii la daan def 2006 arbitre daan sifflé la da def deux pas signalé boobu signalé am ñu may ko mu dem sangu galaaj ñëwaat 2006 2007 2008 xanaa da nga fàtte ni le 10 décembre 2006 la bëre woon ak ki nga xamante ne mooy Yékini kalaafu Gaston nga ba 2006 2007 grand combat ba doxoon ci diggante Balla Diouf ak Bathie Seras Tapha Tine Issa Pouye laa ilaha illallah Tapha Tine foo féete le géant du Baol sama xarit Tapha Tine ana sama xarit Ama Baldé Garga Mbossé nga États-Unis Siteu ma nga États-Unis daram daana nga États-Unis ama neex buuse doomu yaay Balla Gaye 2 ak Pape Diouf ñu ngi lay ziar Pape Diouf di ziar Marcel Diagne borom Jilaas ak Mère Mouss patron bébé Birahim Abdou bu xarañ loo mam Balla Gaye ngi tali Omzo bu garga sa mbër mu wuti ji na doole tuuti ay Sarr Seri Assane arbitre sifle waat na Lac de Guiers numéro 2 Petit Ndiir Abdou Dramé sa mbër mee ngi jàkkaarloo ak mbëru Modou mi mbooru dëkk Géejawaay Papa Ndiaye ni ma ëmma seen mooy sama mbër ak Boy Niang ma ne ko làmb noonu la Boy Niang ak ki nga xamante ne mooy Lac ñaari mbër yaa ngi leewaatoo ndax dañoo nar a dëgër seen bopp xeex raak du ci mën a ñàkk bëgg naa ko ci sama xarit yaa ngi ca géew ba Lac de Guiers numéro 2 sama xarit ba booy Niang sama xarit ba ñoom ñaar ndeysaan ku ci nekk fekk naa la sa kër nga wax Lac de Guiers nee na xam na ma Boy Niang nee na nan laa ko xamee waaye tey daal da ngeen xamante yeen ñaar ku ma ci yoroon dama naan la diriger combat bi te teg ko ci xel maa la ko wax ku diriger combat bi am nga chance pour gagner ko Lac de Guiers 2 Boy Niang Boy ci ndam la jege digganteem ak Sa Thiès le 11 mars 2018 wala boog Boy Niang moo jóge ci ndam Boy Niang ci la jóge digganteem ak Sa Thiès le 11 mars 2018 Lac de Guiers ci defet la jóge digganteem ak Modou le 28 janvier 2018 ñoo bokkoon stade bañ ko amee woon tey ñoo ñëwandoo fii ci arène national bi damante baaraam damante baaraam laa ilaha illallah xool ma lii rek ma ne ko xoolal ma lii rek ràcc ràcc booy ndax day dem ndax booy day dem kii pétrole la teg kii teg pee gauche laa ilaha illallah tabaa gee nee na ma nee na man la gën a ñor ci xeex waaye daa mel ni booy gën a yàgg ci xeex mbërum Aziz Zil Badiane foo féete na man booy ñaa bum asaaloo sunu combat waaye Abdou Darame nee na ma combat bi lekkatuma naanatuma Abdou Diouf maa ngi lay nuyu borom États-Unis Papa Ndiaye maa ngi lay nuyu Ndiaye article ñaari mbëri bëri nañ 4 minutes dara xewagul 4 minutes dara xewagul door amagul song amagul njort naa ne buñ jàppantee mu jeex lag ràcc booy ñaaw wàcc di diree ko ci kawam bu diree ko lag déplacé wu kuy song kuy xeex lay lay la Lazare koog ma pool ña nga étage ña nga bitim réew kee nga France kee nga Espagne ay fàqumaan lañ Njaay saasu fàqumaan la Rocky Balboa borom Suisse maa ngi lay nuyu borom MMA bi Lac de Guiers numéro 2 coach Jabon Mamadou Ali maa ngi lay ziar champion du monde Ali Ndiaye champion du monde karatéka bu mag bi Lac de Guiers 2 doomu ndeyu Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 doomu ndeyu Sa Thiès Lac de Guiers doomu ndeyu Gouye Gui waaye Boy Niang doomu ndeyu Eumeu Sène Boy doomu ndeyu Dégol Dégol Signor yéen ñi seetaan doomu ndeyu Ziza doomu ndeyu Zambala waaye arbitre waxal ak ñoom Lac de Guiers waxoo ma woon lii de Boy Niang waxoo ñu woon lii bëre leen bëre leen wala ma avertir leen bu ngeen bërewul ma jox leen avertissement sible waat na sible waat na lii lañ doon xaar ci yéen yéen a koy def réew mi yëpp nee nañ woon du ngeen bëre ay waay waay teggi leen tuuma bi lak teggil tuuma boo ñaa teggil tuuma nee nañ woon du ngeen bëre de bëre leen teggi leen tuuma bi Boubacar ñaa sunu làmb nee na ngeen teggi tuuma nee nañ woon du ngeen bëre laga ngi noonu moo ñu féete suñu suñu ndeyjoor wala suñu càmmoñ gauche booy ñaa ngeen jàkkaar lool moo féete seen droit xammee ngeen ko doomu dégol baa ngi noonu doomu Pikine baa ngi noonu Lac de Guiers numéro 2 doomu Casamance doomu Géejawaay doomu yaayu Balla Gaye 2 Boy Niang doomu ndeyu Ama Baldé ak Eumeu Sène cokkaas na cokkaas na treize victoire la am moom Boy Niang Sa Thiès la mujjee daan Gouye Gui la mujjee daan Garga la mujjee daan Baye Mandione la mujjee daan moom lan la def Lac de ni numéro 2 am na 12 victoire moom tamit Yaxya Diop Yékini le roi des arènes la mujjee daan moom Lac de Guiers Papa Sow la mujjee daan moo daanoon Moustapha Gueye door nañ ko mu def deux pas deux pas en arrière cokkaas na booy fayu booy mi ndax dana doon booyu kenn Lac na ndax dana doon magum kenn booy ñaa Lac daw na song daw na songu ñu tëru ko tëru nañ ko tëru nañ ko roofoo nañ Boy Niang ndengeeñ na ko Boy Niang ndengeeñ na faq ma ngay bëre ma ngay bëre laa ilaa faq Boy Niang ngi bëre laga ngi bëre lag ràcc lag ràcc na Papa Ndiaye ah en tout cas ngi bëree daal Lamine lag ràcc ñu ngi bëree daal ñu ngi bëre ku ràcc jëmale sa kanam lu muy def ah lag ràcc daa muus de day dell góor gi toogal walaw teen la ku ñëw ca pind ba ngay yem Lac de Guiers numéro 2 Boy nañu cappa coli ak la jato doomu sambe nee na kenn sambay maamam waaye Lac de Guiers numéro 2 mooy doomu Casamance doomu Sédhiou doomu Caajaay laay laay la moo daanoon Babacar Diallo moo daanoon Batika moom Lac de Guiers numéro 2 moo daan Moustapha Gueye daan Issa Pouye daan Yékini Senior daan ki nga xamante ne mooy Tapha Tine Boy Niang def na jaloore de nee naa la moo daan Baye Mandione moo daan lees deux Gros Fo ma ngay ñam te suuf ñamal na ko ñamal ndax dañuy bëre Boy Niang nee na dafa am ndox tu bëre Lac nee na ko doo bëre doo xeex waa waaye ca ginnaaw la waa Pikine ci ginnaaw booy ñaa mborom Abdou Darame Abdou bu xarañ loo ñaari mbëri roofoo njaay ñaari mbëri roofoo nañ ndax du ngeen bëre ndax du ngeen ñu fi lay laay laay la laa eeway eh per bur xaan foo ana tons ni jaayu lak deux xës ma nga ca ban ba toog jàkkaarloog Ron frère am Ron ndengay ñante booy ñaa sëq ca ngemb la lak sëq ca ngemb la moo gën a wóor yeenu jàpp ca gën a wóor yeenu jàpp ca moo gën a wóor wolof njaay ko wax mag du tànqam ndalu mag du tànqam talu jàpp gën a wóor ku ci yenu sa paanu ndox boo ci jàppul bu daanoo nday tuuru yaa yóbbe sa bopp yor nga ñaari loxo bu la neexee jàppal ca benn ba bàyyi benn bi muy langu ngay jaaba jonge Lac de Guiers ak Boy Niang arbitre na lu xew ñëw leen ci biir Lac ak Boy Niang ba ma xënte nañ soxla wu ma ko foofu de ba ma xënte bi ba ma xënte leen ci digg géew bi bàyyi leen ba arbitre sifflé ngeen ba ma xënte woy foo jëm booy lak roofoo nañ doole feeñagul de bu ngeen sonnee seeni mbokk yeddi leen de bu ngeen sonnee seeni mbokk yeddi leen de su ngeen bëriwul seeni mbokk yeddi leen de su ngeen bëriwul réew mi jëpp leen de booy ñaa bëreel lak da ger bëreel bëreel yeewi leen na ni tey Boy Niang Lac de Guiers 2 yeewul nan tey Boy Niang waxu leen ñu woon lii ana curuxu curuxu Boy Niang ana curuxu curuxu Lac de Guiers ana say ganaar yaa ne woon ay ganaar nga yor doon naan fonde buñ fi nii lay réew mi génn ci ñoom bëgg fàllu buñ fi néelee réew mi génn ci ñoom bëre leen Niang de Gaule bërel Lac de Guiers bërel àndoo ci la song bi muy song nii na mel ni lan rek taxawu dégg mais song bi mun na dem ba fii bi daan ko loolu bëgg fàlloo ko wax ku samay wax waxi bëgg fàlloo man sama yoon nekku ci kuy daano kuy daano sama yoon Lac de Guiers 2 12 victoire yaa daan Mansour Diop numéro 2 25 décembre 2004 yaa daan Khadim Diallo Lac de Guiers numéro 2 20 mars 2005 daan Batika 30 avril 2005 daan Babacar Diallo 4 mars 2006 avertissement ku ci nekk ci yéen ñaar Lac am nga ñett de ñaar la dese Boy Niang am nga ñaar de ñett la dese laay laay la laa ba mu daanee ki nga xamante ne mooy Babacar Diallo nees la ci teg bëreeg moom 25 juin bëreeg Yékini Junior 10 décembre 2006 bëreeg Zos wala Tabatine 28 janvier 2007 Issa Pouye 8 avril 2007 Zos 28 juillet 2007 Tafa Gueye 1er mars 2009 Papa Sow 12 avril 2015 Yékini 24 juillet 2016 benn sans verdict la am Baboy digganteem ak Baboy 9 août 2009 deux nuls Eumeu ak Modou Lo deux défaites Eumeu ak Modou Lo moom Lac de Guiers numéro 2 ñu ñëw ci Boy Niang wan ma palmarèsu Boy Niang Mamadou Diouf la bëreel 26 octobre 2008 Batista 28 février 28 février 2009 bëreeg ay kon premier mai 2009 Mbis 21 juin 2009 prise de mer 20 décembre 2009 bëreeg Pape Sène 24 juillet 2010 Dolf 10 avril 2011 Saka Dior le 2 juillet 2011 Double S 2 9 avril 2012 Baye Mandione 23 février 2014 Garga Mbossé 13 mars 2006 2016 Guy gi 5 mars 2017 Sa Thiès 11 mars 2018 deux défaites Ama Neex 27 février 2011 ak Zos 8 juillet 2012 loolu ngeen fi def yokku leen palmarès bi mu rafet ku ci daan sa morom sa palmarès rafet Lac de Guiers numéro 2 booy Niang Lac de Guiers booy Boy Niang demee wet ña ngay wër-wërloo rek di wër-wërloog amateur yi di wër-wër wërloog seeni supporters di wër-wërloog mbër yi di wër-wërloog reporters yi wër-wërloog ñi nga xamante ne ñoo toog ci seeni télé di seetaan. 14 minit dara xewagul puusuñu paasuñu xeexuñu attewuñu kuy xeex maa ko wax bëre leen Lac ak Boy Niang bëre leen waxoo leen ñu woon lii bëre leen bu ngeen xeexee léegi mu jeex bu ñuy xeex muy jeex bu ñuy xeex muy jeex Boy Niang nand na ko maa la ko wax ku song sa moroom am nga sansu daan ko lak tooñ na booy ni tekk Modou Gueye Pape Cissé wala Modou Ngom Ngom la sant daw nañ song ko daw nañ ko mu tëru tëru na ko ndengeeñ na ko sàcc bi du ndax booy ñaar dafa wàcc ay tànkam Lac ak Boy Niang Papa Ndiaye Papa Ndiaye Lac ak Boy Niang Roffo man de waxoo leen ma woon lii Iba Kane nee na moon ragal naa ñu nil ma ngay xeeñ ndax buñ bare 15 minutes arbitre da wax ñëw leen noppalu bu ngeen nii lay dinaa dugg ci géew bi de aw may bu ngeen nii lay day réew mi danañ génn ci yéen dafa mel ni lak day nàcc lak dafa mel ni day nàcc de lak dafa mel ni day nàcc lak dafa mel ni day nàcc Pape Ndiaye day dem ardo lak day dem ardo day dem ardo wala ñoom ñaar ñëpp la day dem ardo Lac day dem Ardo. boo ñaa Lac de Guiers. oh. Lac de Guiers daw na ko mbotti na ko mu moy. oh Lac de Guiers boo ñaa. aba metti na. boo ñaa tegal na ko seen rëpp na arbitre. arbitre lu mu wax. waaw mais gars yi ñu ngi lay ñu ngi lay delloo char mais lamb dafa metti préparé ko ay ay weer ñëw waa ji xam ne boo ñaatee dafa def mais da ngay gis kii dafa daanu dafa teg fes est-ce na leen dafa teg fes wóor na la ko ko télé lan la la ci yoon may daf recours ñu wala ay pauvre recours dañ ko na boole nangul quoi amateur yi est-ce que Boy Niang ak daanu ñu Boy daanu na xanaa kay duñu bañ Boy Niang daanu kay waaye Boy Niang daanu na waaw daanu na daanu na kay lu leen yoon may yéen yoon man daañu ko def bu soobee yàlla li yoon may incha allah daañu ko def suñu recours dañu déposé suñu recours parce que lii mu am nii bu ko booy ñu amal lamb jeex na bu yàgg xam na loolu sax Pape Sarr est-ce que ñaari mbër yi fi leen amateurs yi doon bàkkal war nañ faa daan non da ngay wax la de guerre quoi da ngay wax la de guerre kii lii lañ ko xamee la de guerre eh wuy ma Lac de ko xamee ba tey lii lañ ko xamee quoi lii man bettu ma lii yi nañu bàyyi la tàmm inu bi dara maanaam ana curuxu curuxu ah mais curuxu def ñun lu ne la ñu def ñoo yóbbu ardo ñoo bëre xale bu xale bu nii ne du lekkal kii bi. nee na da ngeen a daanu de loolu daanu kii daa bëre bay daan tàmm na nii tàmm na nii. non mais daa bëriwul daa bëriwul daa bëriwul. yow la Lamine bëriwul xeexul daanu Lamine Lamine Lac de Guiers Lac de Guiers Lamine Lamine Lac de Guiers Lamine na bàyyi bëre na bàyyi bëre Lac de na bàyyi bëre lii du làmb na bàyyi bëre Lamine xale bu ndaw bi na bàyyi bëre. bég naa ci yéen bég naa ci amal jàmm yow day